gën a dëgëral contrôle routier yi maanaam gën a yokk point de contrôle yi te naka gën a diisal daan yi daaji rek obligé chauffeur yi ay repos waaye itam tëral ay daan yu dëgër dem sa ba ci emprisonnement wala nangu permis de conduire ñi nga xamante ne ñoom ñooy contrevenant yi yii di ay dogal yi nga xamante ne état bu Sénégal daal na ko jël ngir rek xeex accident yu bëri yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci biir réew mi ci fan yi mujj ci communiqué bi mu jëwriñ bi nga xamante ne moom lañ dënk wàllum infrastructure ak transport terrestre ak aérien daan annoncé bu accident amee ba ñu ñi ñax si seen i bakkan dinañ ubbi ay enquête gën a rek xuus si mbir yi ba rek mën a teg loxo acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo tàkk si bilee mbiix te nag ñoom ñëpp daan dina dal seen kaw mu nekk ay mesures yi nga xamante ne dafay fàttali rek dogal yi fi régime bi nekkoon jëloon ginnaaw accident yi amoon contrôle routier yi xol yi te naka gën di diisal daan yi daaj